moo tax a ah, man de yërëm naa sa bopp torop de waaye léeg-léeg nga gis nit ñu dénk ko mu yore ko benn xeet yorin bi nga war a am nag naan ah bés bu ñuy taseeg suñu borom lu muy demee 15 millions de sénégalais dénk la 15 millions de senegale am yaakaar ci yow nga ñëw wër Sénégal yépp diggee diggee diggee diggee ba dugg boîte vocale. waaye yemul ci loolu bu doon da nga rek ñu jox la sax waaye nga xam ni dige gi mënu la kaa jox nga piéger système électoral bi foqati victoire bi ñu ne la réew maa ngi nii budget baa ngi nii administration ngi nii lépp a ngi nii nga dem tëdd di nelaw di gundaandaat yaag sa njaboot loolu responsabilité bu rëy la kon responsabilité boobu nun question boobu biñ ko laajee suñu bopp réponse bi dafa fës mooy dafa jot mu am ab génération ci senegal toujours damay wax ni génération nag notion la boo xam ne ni ma koy définiree du rekk affaire u âge wax naa léegi ni doyen àllakan a ngi nii doyen Mody ñaa ngi nii keneen ak keneen te pourtant jàpp naa ni politiquement ñun ak ñoom ñoo bokk génération génération mooy fii ci xel bi li ñu xalaat ni nii lañu ñu war a doxalee réew mi naam nag loxo ndaw ñi moo ci war a ëpp parce que la force motrice du changement se trouve dans la jeunesse changement qualitatif boo mus gis ci diine comme ci mbirum àdduna ay ndaw a ko yenu tey foo gis révolution ci àdduna bi muy Liban muy Irak muy Hong Kong muy France bee ngeen di dégg gilets jaunes yi muy euh, Soudan muy Algérie ndaw ñi à quatre-vingt-dix-huit pour cent ñooy porte la révolution waaye ànd ceeg ay mag ñu baax ndax li may wax toujours nee nañ mat mag mat naa bàyyi ci réew waaye ak magam ak magam ndax am na mag yoo xam ne 1960 wala 1970 ba léegi ñu ngi ci réew mi ñu baleen fi te ci musiba la ñu dugal senegal parti boobu nga xam ne looloo ko taxoon a jóg mu jóg ci ci ay moyens yu limité pour ne pas dire sans moyen mu jóg ci ànd ak conviction ànd ceeg pas-pas ndax Pastef mi ngi jóge ci pas-pas mooy lu ñuy fas ba mu dëgër te dinaa ci dellusi fas ko suñu xol ba mu dëgër këcc parti boobu tey ak ñi ko doon reetaan ñii ne nañu parti réseaux sociaux la moo dem day parti réseau sociaux boobu lii mu am tey néew na parti bu ko mën a am te génnewoo ay millions yu dul jeex ku ne nga jox ko dara yéen ñii jóge fu sore sore ñëw fii ak ñi ngeen fi fekk fii waa Dakar kenn ku ne yaa dajale li nga dajale jël say kaar daal ñëw ba fii fekk si ñenn ñi dañ ne woon parti effet de mode la mbir mi feu de la bu ñu demee élection la woon fa woon rek ñu jóge fak 1 pour cent wala 0 virgule après ñu fàtte leen ñu dem élection. la ñu dépensé nun ci élection bi matul euh, euh, euh, budget wu une heure de campagne da ki jàpp ni moom gagné na avec 58 pour cent te fu ñu dem Sénégal des milliers des milliers de personnes daan nañ ñu xaar ba 2 heures 3 heures du matin kenn amu ko ci candidat yi ñu génn ceeg résultat boo xam ne ku am seetlu ci élection rek xam nga ni ah les grands vainqueurs de l'élection c'est vous kon parti boobu tey lañuy màggal waaye du ñu màggal parti bi yéen militants yi lañuy ñuy màggal yéen la sargal parce que yéen yéen a def liggéey bi du nuñ vous les je tiens à rendre un hommage vibrant yow le jeune militant nga xam ni yaa ngi confronté wu ak l'équation de ton avenir amaana bëri na sa biir koñ ko la yaa ngi toogal fi di topp Sonko rek moom li muy am am na ko ba noppi parce que yéen a ma gën a xam waxinu waxinu sénégalais li may wax ni dañoo am ay wax ak ay proverbe yoo xam ne bokk na ci ñu tardeel ba fi ñu toll nii mooy engagement patriotique désintéressé sincère bëri na sénégalais yoo xam ne dañoo gëm ni loolu mënul nekk te nag sama mbokk wolof yi ñu baal ma waaye bëri na ay proverbe ak ay waxin ci kàllaama wolof yoo xam ne fileeg dindiwuñ ko fi ay saaku bu deful dara du taxaw waaye saaku mën naa def gannaaw kër taxaw est-ce que baax na walla ñu naan legetu neen naxitu béy xam nga mun nga jël ab leget def ci lu la neex def ci tooke béy bi day ñëw lekk dem tëddi mooy li politiciens yi di def rek seen leget moom dafa ànd ak tooke dafa ànd ak poison te nun sax yàlla daf ñoo def nit mu ne li ma gënal ci li ma bind jiital ñu sax ci malayka yi jox ñu xel pour ñuy xalaat kon duñu ay béy duñu ay saaku ay nit lañu kon yow mi ndaw mi ñu naan yaa ngi topp koo xam ne xamal ni toppoo kenn sa bopp nga topp sa avenir moo tax ngay xeex kon yow maa ngi lay sargal yow ndaw mi parce tamit yow ndaw mi yaa ma daan xaar ba trois heures 2 heures du matin fële ca Dagana fële ca Podor fële ca Richard Toll fële ca Bignona fële ak fële ak fële te mu jaral la ko yow cadre bi nga xam ne yaa ngi jël sa responsabilité di jël ay risques bés bu ne. ndaxit dañ koo séq ak ñoo xam ne ngeen jéggal ma ci kàddu gi waaye dañoo xaw a baadoo la ndax baadoo la mooy jaawatle li nga xam ne moom moo ko moom ak liñ ko dénk ba tax ku ne ànduma ak yow ci gis-gis nga ne liñ ma dénk muy doole nguur dinaa ko jël dal sa kaw ku fi haut fonctionnaire wala nga nekk ci yenn position yi même dans le privé jël sa responsabilité ne malgré tout maa ngi dem milité ci Pastef jël sama responsabilité def ko ci lu ne fang maa ngi lay sargal tey parce que gor nga patriote nga jàmbaar nga maa ngi sargal yow militant bi jóge ci walla bi ne ci diaspora bi gis nga diaspora bi ni mu jëlee Pastef bettuñu ñun mënumaa bett parce que dañoo nekk ñoom ci ay réew ak ay système yoo xam ne lépp lu ñuy woote ñun Pastef ñoom ñu ngi koy gis di ko dund ndax gis nañ ñi seen réew ab président la république ñemewul taxaw kanamu sénégalais yépp ne leen bu nag liggéeyee wala IGE ba ñu jàpp ma dem ba ni tu toxal na alalu réew mi man mii président la république ñeme naa ñëw taxaw di ko défendre ñu ne ci réew moo xam ne fu ñuy dañu ne ci réew yoo xam ne fu ñuy dugal alalu réew mi ab tali sax boo ko rombee tey mu bënn boo fa jaaraatee guddi gis nga ñu ngi koy defaraat ku faju feebar même boo yorul xaalis école bi baax transport public yi baax yenn réew yi sax mu doon transport bu gratuit te lépp lalu nag ci yorin gu rafet ak gu sell gu ñu yore réew yooyu kon ki ne diaspora yàgg a gis loolu te gis suñuy homme politique yi ñu miinoon ñun ni ñuy defee safaan wi ci réew mi boo toogee ba déglu discours parce que Pastef di